gis ngeen euh, wax ji nga xam ne wax na ko ci li nga xam moom mooy euh, journée sans presse bi ñu doon def démb parce que dafa jàpp ne Diomaye ak Sonko ñoom dugg nañ ci histoire maanaam euh, niñ ci duggee nag duggin bu xaw a ñaaw la ndax bañ fi jàpp Madiambal Diagne ñu def journée sans presse tey ñu defaat beneen journée sans presse boo xam ne daf leen yitteel mu dem sax bay attaqué waa Walfadjri attaque bu xaw a nu mu tuddati dem ba leen di dippe ay journaliste ñaar naka ngay jàngatee génnam boobu. bon génn bu ñàkk teggin waaye nag man wax dëgg yàlla am xeeb naa li Moustapha Diop def taxaw sax naan fenn nit ñëpp xam nañ ne waxul dëgg. Hmm. loolu moom dama yaakaar dafa waroon a dem au delà de loolu. parce que tamit faaw ñu jéem a yoon daf fi am man dama gëm ne dafa waroon a dem ci yoon. parce que daf leen a diffamé yàq seen der loolu mooy fulla loolu laa gën a jàpp ci taxawoon tey en tant que directeur général boo xam ne da nga jiite ay nit yu taxaw yoo yu la yaakaar konte euh, ci yow mm-hmm. ñu tabb la fa man dama jàpp ne li buggaan def démb kàddu yu nga xam ne tey daf leen a sosal waxuma lam ci wax wala naa daf leen a sosal parce que dem ba di leen tuddee comme ay tan mais buggaan maanaam moom mooy kan ba moom mu sañ a dem grève saña a tëj nit ki saña a tijji fu nekkoon na ci ay xat-xat patron de presse yi laa wax comme Walfadjri gisuñu ñu jàppale leen am na ci ñoo xam ne sax dañoo taxaw di ko suuxlu ne fu mi ngi def lépp ba mu des journalisme seen xalaat la ah. feeñ na ensemble Abdou Mbow mi ñaawlu ay micro ñoo ko wër yoo xam ne daanaka sakkan na ak yu demee noonu ci ci ci biir loolu leneen la mais arrivé jusqu'à wax kàddu yoo xam ne tey kàddu yi sosalaate waru woon a yem ci rek ne ne ne ne Bougane day fen wala nangam nag mais dafa war a dem porter plainte parce que dafa am benn réputation benn groupe bu muy jiite taxaw ci ñoom ak yooyu lii mu def nangam daf leen a daf leen a tuumaal kër ga kenn seetu fi ñu yóbbu ko ci yoon comme ça mu répondre devant justice ñu xam na la dañu dañuy yegg foo xam ne dañu sonn ci lu tax nga wax ma kook mu mel ni genre topp kaa yooyu man damay wax sax suñ mbokk jigéen yi koy def sax nañ ko bàyyi. yi nga xam ne ñooy taxaw tey di topp kaa dañu war a weesu ay góor ne léegi nga taxaw di def comme genre di piit piital xam nga dafa am benn phrase bu Sonko doon wax naan est-ce que gis ngeen ma may xuy xuweeli bët wala di piit piital foofu boo fa tollee da ngay xam ne góor nga da ngay xam ne responsable nga su la nit waxee loo xam ne fenal la fenal sa groupe wala yu demee noonu demal nga porté ko plainte ne daf ma fenal yamul ci fenal ma mais dafa même yàq sama der yàq réputation ñooñu loolu ay dommage la yu mu la teg wala parce que bu ko nit ay nit gëmee tey sa crédit bi crédibilité moo ci joué ngeen dem taxaw euh, no bien sûr non man man toog naa fii dama ne lu gën a normal xam nga tey dëkk su ñu jaaree ci yoon amul ay naan dañuy baale kii wala kaa parce que problème bi mooy ni débat bi di alimenté woo nekk ci biir dëkk bi di jël jotu nit ñi ak yooyu te ñu mënoon ko def feneen mënoon ko wax ci leneen tey journée sans presse bi am na lu ñu ci mën a wax lu bari war ko mën a jàngat mais li gën a teg yow laa rus rek yàlla xam na ko tey rek bi biñ ci laalee ba wax waxu buggaan dama ko dama dama fente question bi gisuma lu ma ciy wax mais comme laajaat nañ ma ko laajaat nañ ma ko li may wax mooy Moustapha Diop mbir mi jàpp naa ne naqari na ko parce que gis nañ mu waxee nu mu masul waxee mais waroo yem ci loolu yoon moo am ci dëkk bi demal nga porté ko plainte yoon doxal ñaari nit lañ comme ni ko euh, bien sûr comme ni nga ko waxee may Maimouna Ndour Faye ak loo ko mën a wax ci sa plan ku jàpp ne dañu la tooñ portel plainte ba kook kiy àtte bul jéebaane bul jéem a soxlu bul def liñ naan porté presse waykat bu mag bee ko yu Youssou Ndour mhm. dokooru maag ñi leen di joxoñey ndax journaliste liggéeyam lay def waaye waru cee yokkit waru cee wàññi man ci loolu laa ci mën a yem parce que wax dëgg yàlla am bugaan moom dama yegg foo xam ne day wax lu lu paaje moom lu lu soxal penc mi rek ma teg ci mais dafa am question yu nekk suñ kanam. Mhm. yu ma gën a bëgg a développer que di développer ci affaire bugaan ak yooyu. d' accord Ablaye Ndiaye ci bugaan bi sortem démb dem bay traité journaliste Walfadjri yi ay saroñaar donc xam naa nag men na ci ni mu waxee ndax euh, ñàkk topp gi ñu gi ñu ñàkk topp grève bi mooy journée sans presse bi. ñoom itam ñu génn tontu ko ne ko kat du wax katu dëgg attaqué ko ba pare nag jox ko ne ko carrément su génnaatee ñoom danañ génn wax te xam nañ li ñu war a wax lan la nooy jàngatee loolu. waaw man li ma koy jàngatee rek mooy ñàkk déggoo gi ma gis ci presse parce que ñoom it wax dëgg yàlla dinaa régler fekkee seen i jotaay maa ngi ci gën a remarqué bi may mën a dugg dafay amee problème président li ma sàkku li ma gis mooy ñoom dégguwuñ seen biir. parce que jàpp naa ne bu fekkee Ewgal la ñuy liggéeyandoo yaakaar naa ak déggoo naa mën a am ci seen biir ba bu ñuy jël benn mesure ñoom ñëpp ñoo koy jëlandoo loolu moo gënoon rafetandoo ci seen base parce que li dal ci ñoom ñoom tey doon na dal ci Walfadjri yu démb laajoon na bi muy dal ci Walfadjri yu démb ñoom ñëpp ñu soutenir ko laaj na tey jii tamit bi nga xamee ne ñi jàpp nañ ne la ñu mekk fekk ñoom ñëpp dañuy bokk ci benn benn livre awa amaa nag Bougane ak lem man surtout beaucoup de respect si benn côté en tant que entrepreneur ndax dama ne man ñaari Bougane Gueye Dany ma si ñaari Bougane Gueye Dany laay wax dafa am Bougane Gueye Dany entrepreneur bu ma respecté parce que man képp koo xam ne créateur industrie nga di liggéeyloo ay Sénégal dafa am benn vis-à-vis de respect boo xam ne dama la ko jox en dehors de Bougane Gueye euh, politique mais nag Walfadjri ku kuy seetaan Walfadjri démb jamonoy Sidi Lamine ñas ba Walfadjri nekkee jamono Abdoulaye wadd ak Walfadjri jamonoy Macky Sall ak Walfadjri jamonoy Ousmane Sonko nga xool seeni plateau xool seeni nit xam nañ ne télé la buy wax ci faveur parti bi di jiiti pouvoir lu póotum biir ma am nag ba tax wal fajo yu dem bu doon wal fajo yu ga Sidy Lamine Niass yoroon ak wal fajo di gii di dox tey nekkul benn lu tëx xam nag daa yàggul ñu ngi dem ba ci kanam parce que yaakaar naa wal fajo yu daana tëj daanañ ko teg ay impôt comme niñ ko tegee ñii tey wal fajo yu génne askan wi génn ngeen xeexal ma xëy na pression ba wal fajo doon teg Ablaye Wade mu di ko teg Macky Sall peut-être ñoom buggaay gën dani mën ñu ko teg mën ñu ko teg euh, Diomaye Faye mais wal fajo yu toog na fii ba tey amee impôt ci Sidy Lamine Niass Issa di la mel naan télé bi télé peuple la génn leen ngeen askan askan wi génn yëpp di jàpp loolu faj ba ñuy teg pression état ba ay kilifa diine di ci ñaan ça veut dire que wala boobu démb nag lañ ko doon teg muy metti di metti ci moom tey jii moom lañ teg ci ay moromu groupe de presse mu metti ci moom est ce que wala faj nam nekkee woon démb normal na yan taxe lañ ko doon teg lan lañ ko doon féem waaye la ko daloon démb ba Sidy Lamine moomeelu askan gi Walfadjri tey ji peut être xëy na loolu moo dal TFM loolu moo dal beneen groupe de presse mais daal man li ma su sañoon ñoom ñi nga xam ne ñoo ne ci secteur de la presse ñu gën a jooyante ci seen bopp gën a jubale seen bopp gën a boole seen bopp ndax ay secteur bu nekkee seenu tàggaloo da di affaiblir rek seenu booloo doole rek la leen di may su ñu def seen i journal nag wala ñu def seen i analyse kenn ku ne na nga jàpp a defee analyse nga defee ko noonu jàpp ma buggaan dem di attaqué ji Walfadjri ay Moustapha parce que Walfadjri dem ci seen biir rek man seeraan naa seen ñaari confrère yu ne ci biir Walfadjri déggoowuñ am na seen benn journaliste boo xam ne moo gisee mu def émission de morceau bu xonq la takk ne problème yeneen groupe de presse am Walfadjri am na ko ba ci seen débat sax moo am ay werante ci seen biir kon jàpp naa même ñoom Walfadjri ñàkk wi ànd ah, ah, ah, ñoom ci seen biir déggoowuñ seen biir li ma jàpp nag mooy lii day xeebal day xeeb seen bopp rek ça ne veut pas que dama contre Bougane bu génnee mais dama jàpp ne bu ñu ko doon def ñoom presse bi yëpp mënoon nañu ànd bokk benn bouclier pour suba Walfadjri bu fekkee sax ba mu daan am problème duñ ko jàppale wawul fayantoo ak ñoom parce que ça ne veut pas dire que man da nga ma def lu bon rek dama jël lu bon loolu delloo la mais Bougane moom damay am vis vis de respect en tant ci moom ñaari Bougane Bougane politicien bokkuma ak moom parti Bougane entrepreneur man bépp sénégalais bu créé ñaari emploi ñuy liggéey dama am vis-à-vis de respect ci yow parce que yow yaay tax sénégalais yi jóge ci semence dem feneen te Bougane ku ku mérite respect la ci biir Sénégal parce que quel que soit alpha bu dañuy politique waaye bu ñu duggee en tant que de man chaque jour dama wax ne damay jël Bougane Gueye référence comme entrepreneur ni may jëlee Sidy Lamine Niass référence di jëlee Youssou Ndour référence képp koo xam ne créé nga boîte boo xam ne ay nit dañu fay liggéey rek damay jël comme référence parce que sans bu ñu mel noonu ñu mel ne yow bu amul Sénégal réew mi nit ñi bu ñu bëggee am fu ñu xëy dina leen jafe mhm. muy noonu donc dañuy dem mais mais euh, ci foofu quand même ma wax lan lañ daan teg wal fajri lu ñu teg ñii mhm. demeewul noonu xam nga tamit faaw ñu jéem a tombé d'accord ci lan moo tax ñii di grève démb. léegi da ngay njëkk lu Walfadjri daan grève démb wax ko. voilà li mu daan grève démb dañoo xëy tëj journaliste Walfadjri dagg seen signal dagg ko bi Sidi Lamine doon wax moomeelu nàngam parce que booba ca jamonoy kii la référendum bi. waa ji ARTP dem na day rocc. mbir mi Sidi ci ab ci Ablaye sax woote na. non xam nga damay wax ne. dafa bëri quoi waaw non xam nga euh, bi Sidi demee ak léegi mën nañ ko wax mën nañu wax 2016. Hmm. ci Ablaye Wade bi mu woote lu mu woote. xam nga dafa fekk impôt teg ko ne dañ koy fayloo mu ne yoreelu ma leen lii. na buggaan taxaw de lii ngeen may fayee ko yoreelu ma leen ko. bu la ko waxee yow nga xaw wax li ngay wax ma d'accord ci. mais ñoom li leen di wax contesté wuñ ko weddi wuñu ne dañ koo yore ba pare yow nga leen di jàppale ci ñu bañ a fay xam nga naa lu mu nekk di def benn instant wax population bi ne leen ñu cotiser ci butin de guerre bi wala ci nangam jël ay produit maanaam tey mel ni jus wala nangam ak nangam mu teg ci tax maanaam tey bu waroon a jaayee ndox ma xool ban ban ban eau moo fi nekk Casamance naa ko wax comme local la may naa ko publicité bi. mu war a jar trois cent. Mm-hmm. ñu ñëw ne dañu koy jaayee sept cent pour ñu jënd ko pour participer ci parce que économie bi mi ngi daan xam nga naa toll na foofu est-ce que yow da ngay xaar Sénégal toll foofu wala Sénégal da xaar mu taxaw ne fay ma li ma la yoreel. xam nga bu fekkoon ne même yeggoon nañ sax mu ne entreprise de presse yi li ma leen doon dagg impôt sur revenu wala li ma leen doon dagg ci euh, TVA wala nangam léegi day yokk bu ñu waxoon loolu ñii taxaw di kaas Ablaye bu boobaa boo waxee lii ma mën koo gëm wala ma mën la koo nangul. mais xeex boo xam ne yow xam nga ne kii dafa yoreel nit lan la yoreel nit impôt la wala yow da ngaa ja d'accord ci chef d'entreprise bu yoreel impôt nit bañ koo fay yaakaar naa d'accord ci loolu kon léegi ñoom lu ñuy grève lan la nañ la tegal loo xam ne nii dafa teg parce que man yow dama laa fonk bëgguma tappale yi nit ñi di nekk noonu parce que opposition lañ nekk ba entre kut ko kut ñu jàppale leen loolu baaxut man wax dëgg yàlla man yàgg naa wax nañ ko waxtaanee. non voilà non nañ ko waxtaanee waxtaanee nañ ko xam nga luy waxtaan. ñoom ñoom président ñoom non xaaral. xaaral non non Diomaye woo na leen. ah non non mise bi moo leen woo. xam nga waxtaan. président yow yaay wut audience ci moom mu xool ndax dana la teg tax président taxawul ne du mu recevoir kenn xam nga defu ko. Mhm. xam nga président waxut loolu. mais xam nga ñun li ñu tàmmal benn problème bu amee rek war a réglé ji ci. Euh, président bi day dema dem ba mujj gi bu ko président bi def sax ñu mujj dem ci sëriñ seeg wala naan jabaru président bi xam nga yeggoon nañ foofu te alors que mbir dafa war a tàmbalee fi mu war a yem ba yegg fi mu war a dem yegg gis nga dafa am lu jo président Diomaye wax saa su nekk nga saluer ko ci posture am saa su nekk ma dégg la bokk na ci bi ñu nekkee France mooy bi muy demee yoonu France mu njëkk ba amoon na audience bu mu accordé leen euh, yi waaye yeewee comme coalition bi ñi ci nekk ak yooyu am ñu taxaw sollicité ko pour que lu tee mu recevoir maire Dakar mu ne leen bu dee maire dakaar am na ministre de tutelle bu ñuy wax ministre euh, euh, de euh, collectivité territoriale wala collectivité locale mhm. mm-hmm. moom moo habilité beneen bi mooy bu fekkee ne en tant que citoyen wala kilifa comme comme nag nga war a gis loolu samay porte ubbil naa ko ñëpp saa yu audience bi fekkee ma nga mu ne ko non maire Dakar en tant que ku nekk ci biir mu ne ko maire Dakar ak bu mba daxun ak njagañaaw ma yow ñoom laa yemale xam nga maire maire la mhm. ci foofu mooy tey mu recevoir bart ak mu recevoir Farba Ngom benn képp la parce que dëkk collectivité euh, territoriale yëpp ñoo am benn wàccuwaay bu fi nekk amul beneen kii loolu bu ko waxaatee c'est volable tamit ci avec la presse ci ñu war a dem wax ji ak kenn ku nekk xam nga waxtaanee impôt nan lañ koy waxtaanee ci boo xam ne yow yaa dajale ba mu yegg est-ce que xam nga bu fekkee ne dafa am ñett yu ci nekk yoo xam ne benn bu ci nekk bari ci ñoo xam ne dañu ngi ci muy benn TVA bi nga xam ne yow. en tant que Ablaye Ndiaye bu yor entreprise de construction ñëw ne la damaa bëgg publicité seen teraanga ne ko un million nga may fay ci nombre de nangam ak nangam un million la mu yëkkati un million di teg ñu ne ko non des na parce que man damaa nekk ci formel état daf ma xool da nga war a teg TVA Ablaye Ndiaye ne la bi ñaata la nga ne ko million huit cent nga ciy dolli un million huit am na fu mu xaj Ablaye Ndiaye dind ci ñaqam un million huit cent teg ci yow nga war koo teg ba weer weer di ñëw booy dem di fay impôt fay ko nga ne ko dëndiix lekk wala nga dugal ko ci leneen loo xam ne ni ñun bu ñuy leb eurobond eurobond wala leneen ak leneen mais bu échéance yi jotee bu Sénégal fay wala euh, BAD wala bidd suñ leen leb banque yooyu mais xaalis bi dafay yokk kon boo yorelee état bañ ko fay lu tax Sénégal lu tax ñu teg fi ay nit parce que dañ la teg organiser état ne ñun daggal ci ñun nangam mag na ñëpp d'accord mais ñu jox ko chef d'entreprise bi chef d'entreprise ne ko wan wala ba tey seen teraanga Aliou mii di fi liggéey weer ñu koy fay huit cent mille huit cent mille yooyu ñu koy fay état ne ko yow euh, directeur général bi daggal ma Aliou mii quarante mille francs moom lay cotiser ci argent compte compte bi yaaw mais mu dagg ko ci moom ba pare dem def ko ci poosam lay nit toog fii di wax naan liñ teg ñii liñ teg ñii laa bëgg ñu waxtaane ko lan la parce que nag mbir mi dañ ko war a wax mu leer maanaam li ñuy doon xam nga. maanaam da jàpp dañ koy politiser. ma ne dañ doon laaj soxna sa doon euh, kii xale ba. Mhm. te mu ne jóg di leen guddee ne ko moo yow soxna si looy daas. xara dee ngay daasam ginaara dee ngay daasam bëya dee ngay daas. ndax fekk ñoom la bëgg a rey. ok. laaj la ñoom lan la ñuy grève lu xew mais nañ ko li ñuy def nii mooy waxtaane xam nga tey li may yow da ñëw rek. ne wal fajri bi ñu ko wal fajri daawul def loolu ñu koy def. en tout cas bu daan impôt la Sidi Lamine lan la daan wax. li ngeen teg nii du ma ko fay parce que tollut nii. tollut nii nag su xasee am loolu mooy contentieux ngeen dem tribunal ngeen réglé ko. alors ko yow kan nga dégg mu ne yoreelu ma lii ñu may fayee ko yoreelu ma. est-ce que dégg tollu nii la kan. dana ko non non xam nga tollut nii fan lañ koy waxee. mooy dem ak ci tribunal foofu laay waxee. mais lan moo indi woon Sidi Lamine Niass ci génn ci ko Sidi Lamine non xam nga Sidi Lamine doon na manifester ñi ñi mu ñi ci dem ñi gëm ne li muy wax ñu dem ca ñi ca gëmul ñu dem teg ko Sidy kenn la comme Bougane comme keneen comme keneen mais dafa am yeneen yoo xam ne dañ fi tëj Walf Fadjri parce que Walf yi dafa publie dafa dafa génne nangam mag nangam am taxawaay loolu am na fi amaat fi xam nga si fu moom moo doon neex nooy neexu mag yeggaat yi même Sidy Lamine mu jàpp ko tëddal ko ti karo yi. fii ci. Euh, man Sidy Lamine Niass waxuma sax Sidy Lamine Niass bu mag bu waaw Macky Sall mais Sidy Lamine Niass depuis PDS. c'est le comportement la amoon. nii ñoom Bougane dañ ko tëj. la doon def non damay laaj. mais nii Bougane. waaw non xam nga man. non man foo waxee rek. gis nga man suñu boromam ma dimbale gis nga bi gars jéem a xam France wala xam yeneen histoire man réew mi laa xam. man nag solidaire waaw non non non solidaire non ci lan ngay solidaire. xam nga tey yàlla xam na ne bu fekkoon état moo tooñ tey dem teg gars yi lu mu leen war a teg wala mu dem di tëj benn entreprise même Bougane tey bu doon dañoo tëj euh, journaliste bi ñu doon woolo woon ay jamono muy. Euh, la Tribune. ak euh, ki jiite le quotidien xam nga loolu tey mhm. même bu fekkee ne ci suñuy loi seen article su code de la presse tere na leen ko ci dossier yu mel ni même boo ko laalee du ñàkk ci àdduna bi am ci benn dëkk boo xam ne yaa moom bokk leen nu ngeen tegeel waaye ba foofu ñooñu mën nañ la supporter ci loolu jàkki la mais fayuma impôt kan moo la ci supporter ban nit mooy dëggu bañ a naaw fekk di la ci supporter xanaa mu ñàkk xam léegi nag yow xam nga communication ak deformation dafa gaaw ba nga xam ne nii te beneen affaire mu am ci entreprise yi attention gis nga laa njaay dafa am lu ñu daan wan ci RFI wala ci yenn seen tubaab yi ñun lu ñu yaakaaroon ñoo ko wax rek ay temps dañ koy gëm wala ñu ne la seen Afrique neena na dem nañ ba benn li crédibilité amatuñ ko ci Afrique maanaam population bi gimmi nañ léegi ñun suñu ay journal la ñuy jënd léegi na dañu contourner affaire bi xaalis bi ñu daan euh, euh, financé yenn journaux tubaab yi ak yu demee noonu léegi dañ koy jël dem ci presse locale bi di leen ko ger geree laa lay wax parce que fii am na ko fi doon ubbi Abdoulaye Wade ne ko carrément diw moo nekk seen ginnaaw bañ a joxe licence bi mu ne ko faaw diw maanaam sénégalais am ci pour pourcentage temps ma koy doo ko maye. Mhm. Mhm. lu tax loolu koo xam ne am na trent cinq pour cent ci benn entreprise de presse boo xam ne daanaka tijji xawoon na koo tëx mhm. xam nañ nu mu demee lu tax Wade defoon loolu ah. pour mesure de prudence suñ demee ba loxo bitim réew di dugg ci suñu presse yi te dafa commencé di am yemuñ ci xam nga Sénégal ay temps su Wade ñaata journal la fi bàyyi matul 20 ñu jékki-jékki mu bari te wóor na la ne yow jëlal tey nga ubbi journal mu wóor na la ne yow lii mënoo koo jaay ci nangam parce que journal yëpp mënuñ fi mat 20 te lu mu néew ne war nañoo jaay 30 000 exemplaires par jour trent mille exemplaires ñaata ngay jaay cent francs fois 30 mille mais pratiquement journal voilà. bari nag par électronique. 3 millions par jour loolu nga war a jaay. Hmm. wala nangam mu wóor na la boo ubbee muy loolu léeg-léeg ngay mujj di jaay. ay ala in ngay jaay. wala ay tappale yoo xam te gis nga. presse bi jàpp sa xam nga ñu ngi wax chef de l'état xoolal ñu ngi wax chef de l'état pour ñu ngi ñi bi non li ñuy def nii mooy waxtaane parce que man ak yow ñu ngi ñuy dégg. Mhm. te wóor na leen ne li sa wolof di wax nii. ak li laay njaay di waxtaane nii. lii mooy réalité bi. xam nga tey bu la wóoree ne yow yaa ngi ubbi entreprise te te taxaw gis nga bu ñu ko assainirul gis nga même ñi ngi bëgg a jël temps vert président génn ci. Euh, conseil supérieur à la magistrature muy lu am solo nag président waxoon ko jit muy lu mu war a def loo xam ne lu ñu war a yegg ci foofu parce que bu ñu yeggee ci démocratie mais est-ce que ni mu génnee ni état génnee loxoom ci presse bi est-ce que kon ba mu juróol ñu lii suñu demoon tey ba ci magistrature mu mujj mel ni ban dëkk la ñuy am maanaam nit day jóge bitim réew mën a yor alalam guux la ko teg la ko nga mujj di jaay ala in est-ce que bu ñu yeggee foofu moo tax Sénégal comme ni nga ko waxee faaw ñu waxtaane ko mais bu ñu koy waxtaanee nañ waxtaane dëgg ki yoreel nañ ko wax ne ko demal fay nan la nit mën a taxawee maanaam euh, Laye Ndiaye est-ce que xam nga te euh, nu mu tëddee télévision di Sénégal muy muy muy muy TDS. TDS xam nga yeneen dëkk yi xam nga ñaata la ñuy fay par par anne année. 75 millions xam nga ñaata la ñuy far fay par par par weer 6 cent 250 mille. Oh. bi ko Macky Sall tegee fii 2017 3 millions la waxoon. mais ñu waxtaan ne dafa diis dafa diis nangam nang ba mu defal leen ko un million mais un million yow loolu te yow bu njëkk yaa ko daan defal sa bopp yaay dem ba immeuble Kébé nga teg sa sa sa sa sa sa sa sa émetteur wala nga dem Toglu mooy route de Mbour montagne bi fii nga def sa émetteur noonu nga koy defewaat Tamba pour gën a mën a couvrir bool boobu wala wala Diourbel wala yu demee noonu léegi yow loolu picc yi danañ ci tàgg wala danañ ci euh, jonkan maintenance boobu ngay def xaalis la yow buñ la ko defalee yow da ngay toog dootoo laal dara ñoo lay distrib ñoo lay distribuer problème mu transport lépp ñoo la koy defal ñu ne la weer wu jot euh, un million yow nga dajale ko at bañ a fay lu taxoon. da nga amoon bàjjan fu mu tegee fayal nga ne doo fay nga ne ma nga ne noo dañ maa bëgg dañoo xoqatal ku la xoqatal boo amee difficulté Ablaye Ndiaye kan moo ko teg boppam. léegi fan lañ seen morom. waaw non non <laughs> xoolal xam nga yow au moins ci benn côté. dama la koy nangul mais nañ waxtaane lii maanaam kii. presque mais man xam nga ça ngeen di waxtaanee affaire yu justice teg ko kenn newu leen déedéet. ba ki dem démb ngeen génnee affaire foncière